dafa am image bu ma ndoy baan woon mhm. wax dëgg yàlla xam na ko mhm. lu rey sama yaram te mhm. dina bu noppee dina la ko woon dañoo gis ne ci biir kër yi Xasan euh, wax ju ñaaw bare na ci ndax bu jëkkaan ci sunu jamono yi ñoom maam ñoom bu nu seenaan seen boroom kër di ñëw seen xol da daan neex nga seen soxna si muy ñëw nga sant yàlla nga gis sa soxna di ñëw ci yow nga ngay ñaan yàlla mhm. ne yàlla jërëjëf ci ki nga ma may mhm. waaye ñun jamono yii ñu ne mhm. ay coup de poing la ay waxante lu ñaaw li ma naan bu nit mën da ngay mën wax lu ñaaw maa la ko dàq yàlla nañ ci yàlla mu musal mu wan ñu image boo xam ne ku jël ay coup de poing yu bare dóor ko jabar ji alors fi jabar ji euh, too nga gis euh, mel ni robinet robinet deret bay ngi mais nekk deret ah, kooku ah. nañ ma baal si terme bi. waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kooku sauvage la. Mhm. cey ak service. ma akramahunna illa karimun sallallahu alayhi wa sallam wa ma ahanahunna illa laimun. Mm. nee ne soxna yi noobul rek moo leen mën a yor ñu ne ko lu tax mu ne parce que ay porcelaine lañu. dafa daan jékki-jékki saxaaba yi toog radiyallahu anhu yandur jëlal bi sallallahu ne leen nee na yi ay ay porcelaine la mu ne leen rifqan bi qawarir xam nga loolu mooy lan dee leen def doucement ak porcelaine yi mu ne ko ñan ñooy porcelaine yi mu gestu xool ay soxnaam ne ne hun na xawaariir porcelaine yaa ngi nii da boo koy nettoyé dafa am nooy négocier ak moom ba am si moom li nga bëgg nga teg ko sensibilité mais bu fekkente ne am na noo xamante ni doxala nga ne ak moom mu daanu toj nga for ko sa loxo dagg nga rëccu nga jële sa gaañu gaañu ak mettitu xol ndax dagg fii lay jàpp mook la kayam comprendre ne moo tax mu ne rifqan bil xawaarir nañu leen yërëm xam nga lu tax na ne nañu leen yërëm mm-hmm. mu ne parce que amul kenn koo xamante nii si ñun lu dul nga jàppe nga sa soxna ni nga xamante ne nii noonu nga ko war a jàppe lu dul ne di nga am ngërëmal borom bi subhaanahu wa taala Eva ma wax la bismillah nga xëy yow góor mm. sa soxna mm-hmm. laaj la dépense nga am ko mën ko di fuuñ fuuñal wala bañ ko ko jox wala nangam mm-hmm. ba xolom tàng si boo génnee loo wuti doo ko am ak wóor jërëjëf Seck ma wax la. ngay jox sa doom sa jabar chaque mm-hmm. jour. 5000 mm-hmm. francs dépense. bu ko jox chaque jour 5000 chaque jour 5000 chaque jour 5000 xolam di si sedd loo boo génnee loo wuti ji suñu borom subhanahu wa taala jox la ko xam nga tax. Mm-hmm. wa maa tunfiqu min xayrin ya'lamuhullah yàlla nee na lépp lu ngeen joxe mu jëm seen jaboot di lu baax man xam naa ko beneen bi bu ne yasalunaka maada yunfiquun qulil af yaf'alna ma yunfiqun qul ma anfaqtum falil walidayni wal aqrabin lu ngeen joxe ñi si gën a yey mooy jur yi ak soxna yi njaboot gi te njaboot gi ñi ngay njaboote souvent kenn du si jiitu soxna si wala soxna yi donc loolu lépp dafa bokk si yërmande moom dafa daan toog moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam xëy mhm. xool gis na soxna yi yeewooguñu mu jël pañe bi dem marché mhm. bu nduggijee ba ñëw bu xoolee yeewooguñu mu raxas ndugg mi commencé xolli bu soxna yi yeewu yeexee mu taal bu buñ ko nee waa lu xew mu ne leen waa mais yéen da ngeen di nelaw yeewoogu leen kon ma jàppal leen du dara dem na marché moom sallallahu alayhi wa sallam ndugg yanu ko benn saxaaba xër bu mel ni ndooy baan rek gis ko song ko ne ko sang bi waroo yanu yow la yàlla yónni yaa fi gën mu ne buñ ko toggee ba mu ñor sama biir bii la jëm comme ñoragul nag sama mbagg gii la gën a yaye maa koy yanul sama bopp kon soxna yi dañ leen wër di yërëm jox leen seen gëdd jox leen seen waaye xam nga lu tax jigéen june yaay la même comme ni soxna si génn wax même su amul tout tànk yaay la xam nga lu tax. Mm. parce que jigéen dana toll si biir néegu sëy foo xamante nii dafay jouer rôle yaay. Mm-hmm. digganteem ak boroom këram. Mm-hmm. maanaam soxna dina dem ba nekk yaay si waxin si boroom këram. ndax taxawaay si toppatoo si taxawaay. Mm. Mm-hmm. si yiir si si si ànd boo xamante nii bu rafet la te loolu day bëggal jigéen day bëggal jigéen. parce que dañu ne la maternité est le royaume de la féminité. Mm-hmm. la maternité est la royaume de la féminité. soxna dina nekk ci biir kër. Mm-hmm. yàlla du ko may takk ndeer mais yow boroom këram nga ne mettre ko à l'aise mu nekk ci jàmm ak salaam ba mu sentir na moom elle est mère entre guillemets et elle ne l'est même pas. te li yàlla lay def Assane. Mm-hmm. yow lay feelu da nga gis soxna soo xam ne juru la. juru la de. am nga yaay boo bàyyeekoo. waaye sa digganteeg moom bu la nee jàkk mhm. nga yëg ci yow mhm. ne kii yaay la waaw moom bu la xoolee mhm. muy gis ne kii doom la maanaam doo am différence ak doomam yi nga xam ne moom moo leen jur pour rek dëggal li nga waaw xam nga la moo waral loolu parce que xol ba xolu yaay la xam nga dañuy wax ne waajur boo gis waaw bu gisee doomu jàmbur rek da koy jàppee comme doomam moo tax li ngeen di waxtaane di viol am na loo xamante ni kenn bëggul ku ko def sa doom kenn kon bul ko def benn doomu jàmbur moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon waaja bi mu ñëwee ne ko man daal sama nattu ñu jéggal ma si kàddu gi mooy njaaloo munuma ko bàyyi mm. sallallahu alayhi wasallam ne ko ah, mu ne kaaw mu ne ko toogal mu toog ak ak allo allo oui oui asalaamaaleykum macha allah waaleykum salaam wa rahmatullah wa rahmatullah waaw dama bëggoon bokk ci émission bi mm-hmm. ñu ngi lay déglu bu baax waaw man nag comme lu ñuy wax rek loolu kenn kenn du ko cautionné mooy violence sur les deux kii. mooy mm. si côté wu ko góor ak si côté wu ko jigéen. Mm. parce na am na violence mm-hmm. am na violence verbale. Mm-hmm. tongo sax violence la. Mm-hmm. tongo ngeen nekk si si kër gi di tongo sax violence la. wallaay wax nga parce que problème bi mooy sama benn avocat dafa doon wax ne jàmm loo ko jëndee jàmm na ko. jàmm mu ne ah, ah, parce que man lu ma gis dëkk bi mooy euh, déception. déception. moo moo indi violence yi. dëgg déception nag au sens large. parce que kii day séntu am lu muy séntu si waa ji gisu ko si. waa yi aussi am lu muy séntu si femme bi gis gisu ko si parce que bii loolu ngoro am na yu bëri yoo xam dañ ko doon gis te loo xam du woon dëkk. dañuy foog na nag loolu nag mooy nekk si biir si biir si biir mariage bi. léegi na xam nga frustration ak déception yu bëri. Mhm. day dem ba sàgg day indi comme lu wax absence de communication day dem ba sàgg ay actes day indi. dëgg la xool yi ngeen commencé di di coow di kii ni comme ça dama loolu je pense que yëpp ñàkk waxtaan moo ko am au début. Mhm. au début comme tubaab ni wax mauvais départ mauvais arrivé tout est au début. mo mo mauvais départ. mauvais départ mauvais arrivé. oui. moom départ mauvais arrivé. Mhm, mu ne tout est au début. da ngeen di toog waxtaan lépp di début. Mhm. mais lu bëri si moom duñ ko waxtaanee. dañuy bàyyi nag si biir sëy bi nag après nag parce que dama leen gis nga matin mhm. beaucoup d'hommes yoo xam ne maintenant ñu ngi si petit déjeuner yi si restaurant yi. boutique mhm. midi ñu ngi si ay kii le soir si boobu mën nañu gis ay si yenn kii foofu lañu toog da ngay gis un homme marié toog ba minuit deux heures de matin ñibbiwul këram. du ma man ne mais c'est pas vrai kii mënul toog ñu dénk ko soxla mu toog ci bi ba heure bi. mais femme bi xale yi góor kii bi tout ça pourquoi moom mu nekk ci mbedd wi c'est une irresponsabilité. Mm-hmm. su fa amoon dara lu fa am sax moom du ko xam ils sont aux abonnés absents les hommes sont aux abonnés absents. merci monsieur ñu dénk leen jigéen mais nekkatuñu fa. Mm-hmm. bon doy na waar quoi ce pays là. c'est ça. beneen kii boo xam lañ ñu war a defaat euh, mooy euh, pour man euh, ñu gën a fonkat jigéen. gën a fonkat jigéen gën a valoriser seen bopp jigéen ñi gën a xam seen bopp aussi ñoom seen bopp seen valeur lan la mm. ak seen mission lan la si lan la lan la si yàlla bëgg seen mission aussi mm-hmm. lan la si société bëgg parce que je y a benn crise de valeur et une perte boo xam ne d'identité boo xam ne bu fi nekk nit ñi xamatuñu maintenant ki kii sont xamatuñu seen bopp dëgg la macha allah xam nga yàlla kam moom moo mel ni mu mel rek. Mhm. dafa def euh, oustaz. Mhm. dëgg moom bu jibee daf lay neex rek nga ni fàtt naa sama nopp waaye wallaay de dugg sa biir xol par force doo ca man dara ak boo mënti féete. dama doon dem régi waa waa ji li mu wax nii. Mhm. les hommes sont aux abonnés nag. absent absent voilà da ngay laaj nag lan moo tax ñuy absenté wu. c'est-à-dire. voilà da nekk sa kër. di fa joxe dépense bu mat sëkk. doo añ doo reer mm-hmm. ay hamburger ak shawarma la la sa jabar di jox mm-hmm. ay palaatu ceebu restaurant mm-hmm. yaa ngi joxe dépense léegi nag soo gisee à côté koo xam ne daan soo ko joxee junni mu toggal ci bu jën boo xam ne sa jabar iñaane na la koo toggal ndax day day ndax day day day uti marchandise mm. ndax ndax ndax day day day day liggéey bureau ba la nekk et tout loolu moo dina tax dina tax jigéen ñu bari ñuy dàq ñoo génn seen jëkkër yi ci biir kër ya ah. mm. parce que toggatuñu añ jànq ba la ñuy bàyyi mu toggal leen wala ñu jënd leen plateau ceeb ca restaurant ba parce que su guddi jotee seen jabar yi jëlatuñu temps toggal seen jëkkër yi reer dañuy dem ca fast ba jënd leen hamburger ak jëndal leen ay yoo xam ne kenn xamu nu mu doon ah, mais loolu mooy problème bi moo tax yenn góor yi ñu ci bari di génn waxuma ni looloo loolu kuñ ko def da nga war a génn toogal si biir kër nga lijjante kook sa jabar mais loolu mooy génneel gaa yi demal ci restaurant yi heure añ demal ci restaurant yi ay homme homme marié rek nga fay fekk te nga bàyyi bàyyi nga dépense bu mat sa kër guddi jotee demal ci restaurant yi. ji jéeg ju ndaw ji nga fay fekk ñuy jënd ay plateau yu kenn xamul ay ay ay ay ginaar ak ay ay ay ay ay shawarma di ko yóbbul seen seen seen seen jëkkër yi. iñaa na ñoo toog def benn 30 minutes toog reer bu normal taajal ko seen jëkkër. ñu dara ndax utu dërëm. très bien te soo ko wax soo soo ko bëggee kaa soo ne. Euh, mm. da nga bëgg da nga ne stop télé bi xool leen ko stop. aux violences les dañuy violenter góor ñi jigéen ñi dañuy violenter góor ñi góor ñi dañuy violenter jigéen ñi mm-hmm. lan moo tax góor ñi tamit ñu leen di violenter ci biir kër gi mm-hmm. jig jig jig góor a ngi tëdd ñu fanaane ko xas ba asamaan set su xëyee du ko ñemee wax parce que ruus na ko wax góoru Sénégal la yàlla bindee noonu mm-hmm. ruus na maa taxaw ni sama jabar damaa fanaanee xas très bien soxna Miandou